jataay bii nag li ko waral mooy jataayum ndigal la kenn ku ne xam na ni liggéey bii di sàmm war may Touba ba nu ko tàmbalee dox si ab diir jamono yi nu weesu yëpp amoon nañ ak tekkeeral boo xam ne kenn ku ne yëg na ni am na taxaw bu nu taxawoon taxaw boobee nag defuñu ko woon si sunu coobare dañ koo defoon ngir ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko woon ci sëriñ bi jëm si fi noonu la ko waraloo it mooy sëriñ bi dafa bëggoon gannaaw dox nañ ab diir ñu gis ni am na ay pakk ak i gàllankoor yu ci feeñ ak yenn yoo xam ne xaj na lu nu war a defaraat la te jàngat boobee ñu dem ba teg ci suñu bët ba xam ko sëriñ bi wax nag ne nan ne tekk nag daal di defaraat liggéey bi jublu si nag sukkandiku si li nga xam ne mooy bëggu sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha mu doon kàddu yoo xam ne wala mu doon bataaxal boo xam ne kenn ku ne gis na ko wane nañ ko fépp sëriñ bi génne ko daal koy yeesal si sëriñ Amdi Fall xamal ko ne ko li ma bëggoon mooy njaboot gi nañu tënku si lii nga xam ne mooy digle yi fi Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bàyyi woon nga xam ne li ma si dolli loolu Serigne bi wax na ko mu doon wàllu politique ak wàllu euh, njàngale moo xam ne wuute naag njàngalem sëriñ Touba fii si biir dëkk bi loolee ak football loolee bi nga xam ne ndigal loolu agsi na si sëriñ bi si la sëriñ bi wax nag ni nañu daal di taxaw nag defaat ab seetlu defaat. nag ab gëstu si lii nga xam ne moom la bataaxal bi wundu loola doon sababu mu tànnoon ay jëwriñ boole leen ak nun ñii nu toog ay jataay yu yàgg yu bari di say di saraa li nga xam ne moom la sëriñ bi tënkoon ci bataaxal boobee ah génne la nga xam ne loolu la sa sëriñ bi jublu bañ ko saraa ba génne sa lan sa xalaat ñu delluwaat si sëriñ bi xamal ko ne ko bataaxal bi kat lii ñu si bind biñ si defee ay waxtaan nii lañ ko déggee nii lañu xalaat doxe noonee sëriñ bi seetaat loolee daal say indiwaat ay jubbanti delloo na ko ñu saytuwaat ko ba mu àgg sax foo xam ne nag sëriñ bi wax na ni nii mu mel noonu rekk laa ko bëggee kon na ngeen daal di su jaaju nag takku nag ngir nii nga xam ne noonu la ko sëriñ bu bëggee gannaaw xam ngeen ko ngeen fas yéene koo jëfe noonee boobee nag la sëriñ bi daal di joxe ndigal njaboot gi ñu defaat ab ab ab ay tànn yoo xam ne ay kuréel yu bari yoo xam ne samp nañ ko kuréel yooyu bañ koy sampit lañ si jublu woon mooy bëgg ak jàppandal kenn ku ne am wet goo féete kenn ku ne am loo xam ne yaa ko téye su ko defee liggéey bi des na ko mën a séddoo suñ ko séddoo dana jàppandi ndax dana woyof suñ ñëpp kenn ku si nekk la nga yor da nga am jotug man koo saytu ba xam dëgg dëgg ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko noona si kaw anam yooyu lanu ñu defee nag bureau boo xamante ni bii dañ koo sàkk wutal ko njiit njiit li di sëriñ bi mu jox ma kàddoom ñu ta sàkkit secrétariat général boo xamante ni bii sëriñ Assane Fall moo ko jiitee ànd koog sëriñ euh, Ousseynou sëriñ Baye Ndaam ak sëriñ maam Cheikh mii toog ak sëriñ Fallou ak sëriñ Moutalaam sëriñ Abdou Sakkour ak sëriñ euh, Bada ak sëriñ Abdoulahat ak mbooleem suñu wajur yooyu nga xam ne ñoom dañoo nekk suñu kanam sëriñ bi jox leen secrétariat boobu ñu nekk suñu kanam ànd ak ñun liggéey bi waaye. ñu tànn nag yeneen mbooleem li nga xam ne jëm na ci wàllu commission luy doxal luy doxal a mbooloo loolee sëriñ Aliou bi nga xam ne moom mooy yore wàllu communication dana ci dellu ci leeral ko ba ñëpp xam ko waaye li am solo mooy taxawaay bu bees bii nga xam ne moom lañ fa yéenee jublu sëriñ bi moo ko digle santaane ko sakkal ñu yoon wu nu jaar yàlla dogal ñu am taw ñi nga xam ne ñooy dayre gendarmerie retraité yi nga xam ne ñoo ne ñu newoon gendarmerie retraité ñoo ñu ñu am tey sëriñ bi mboole nu ak ñoom ñu toog ab biir lu mat weer wala ñaari weer loo xam ni defal nañ forme def nañ ay ay ay ay tàggat ci mbooloo mi nga xam ne moom lañu ñu jàpp nañ ni mbooloo mu nu tànn la muy ay tànneef ngir jàngal leen walla won leen dëgg-dëgg walla natt leen ci dëgg-dëgg bi nu am. si bataaxal bii li sëriñ bi bëgg ñu liggéey ko ñu dem ba xam ni ñii nag ba àgg si ñu xam ni ñoom ñu ko sëriñ bi bëggee dëgg-dëgg am nañ yàqin si ne xame dañ ko noonu te am nañ yéene yi doxee ko noonu ko sëriñ bi bëggee loola moo doon sababu ñu amaan ndigal nag daal di yëkkatiwaat liggéey bi yëkkati googu nag kenn ku ne xam na ne daje na ak yeesal bu sëriñ bi yeesalaat ndigal li si sëriñ Amdi Fall ak njabootu Cheikh Rafal ndax Serigne Modou Mountakha mi joxe woon ndigal li moo woote yeesalaat diggal li daal ñuy gën a jaajaat daal ñuy gën a euh, euh, gën a jaaj ba ñun ñu xam ne sëriñ bi liggéey bi ñor gi egg na ko foo xamante ni fii foofee nun mënuñu ko saxa natt te yaakaar ji mu am ci kër Cheikh moom moo ko xam ba tax mu jël liggéey bi dénk leen ko kon ñun ñu xam ne buñ mënta natt sëriñ bi tolluwaayam boobee ñu xam ne daal fu ñor di toll rek liggéey bi ñor na ko ko ñu nit ñu am tawféexu lañ digee woon ak moom ne ko loolu digal daanu ko def loolu tere daanu ko bàyyi lii mënu digal ñu am taw pastéefu fas yéene defe ko noonu nga xam ne noonu la ko bëggee ci kaw noonu liggéey boobu nag moom la ñu fas yéene tàmbaliwaat incha allah suba di altine ñu fas yéene tàbbiwaat si biir liggéey bi ñu doon bëggoon nag ñun ñi nga xam ne ñoo jóg jëm ci sunuy bokki taalibe ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñuy fekkee ñu bëggoon waxtaan ak ñoom laabirante ak ñoom ba am ak ñoom ak déggoo ci li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ndax sëriñ bi dafa bëgg dëkk bii ba ko sëñ Tuubaa sos la nga xam ne loolu la loolu la jublu woon bëggoon ko loolee ñu fas yéene sàmm ko waggar ko ba dara du ko ruur muy worma ji nga xam ne kenn ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa bu ñu waxee ma rek moom lépp daje na fi moom dëkk bi yelloo na ak loo xam ne. maanaam bokkul ak li Serigne Touba daj ngir nu am tawféex gii loola wuute na wala tolloowul ak ñuy dëkk ci dëkk bi di doxee noo xam ne loolee wuute na ak war ma ji nga xam ne moom la moom la dëkk bi yellool sëriñ bi bëgg nag ñu delloowaat njukkal sëñ tubaa si dëkkam bi delloowaat ko si njabootam gi bu ne njabootam gi nag mooy taalibe yi ko yaakaar rek ndax Touba ñu fi nekk ñëpp wut si rek luñ mënta ñàkk te mënaluñ ko seen bopp moo leen fi indi nu daw nu daw di ko fi wut si ñu xam ne nag fi ñu koy wut si mi ngi fi waaye nag ñu fexe ba mennum ruur wala lenn lu mën a xajamal loolee loolee duñ ko duñu dajeeg moom loolee tax Serigne Mountakha bëgg ñu delloo Serigne Touba njukkal loolu sàmmal ko dëkkam bi sàmmal ko war may dëkk bi waaye sàmmal ko war may njabootu boppam gi loola mooy sababu jóg gi ñu war a jóg daje jiwaat ak suñu bokk yi nga xam ne ñoo bokk pas-pas ndax liñ yéene jiñ ci am ñoom it yéene jooju rekk lañ ci am jëluñu suñu bopp teg ko sa kaw teg keneen fi suuf ay taalibe lañ yuy jóg war a laabirante ak seen bokki taalibe si li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi ndax àddina moo demee noo xam ne nit ki léeg-léeg mu fàtte wala léeg mu mu mu xaw a jaxasoo wala léeg melow àddina mën koo gane kon bu boobaa nag day soxla koo xamante ni kii dana nekk si wetam di ko fàttali li nga xam ne moo ñu fi indi te bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla te ñun suñu jaamu yàlla mooy topp sëñ Tuubaa rek liggéeyal ko kon incha allahu ci ndigalul sëriñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenda bàyyi ko si Cheikh Modou Mountakha jaar si Cheikh Modou Bachir moom sëñ Abdou Khadir di jëwriñ di kàddu yoon wi suba incha allah lañ fas yéene tàmbaliwaat liggéey bi gannaaw ba nga xamante ne bii jaar nañ ci yu bëree bëri yoo xam ne jàpp nañ ni ak tàggat ak wàccaay la boo xam ne jàpp nañ ni mat na bañ war saa àgg kon ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekkee ñu xam ne seeni bokki taalibe bi rek a jóg di leen fekk si ngir laabirante ak ñoom fitna yëkkati wunu kat euh, fitna yëkkatiwunu ñëwuñu ngir xuloo ñëwuñu ngir xeex ñëwuñu ngir jàppante danoo jug ngir laabirante ak suñu bokki taalibe yi ñu bokkal dëkk bi ni nu ko mas a waxee yàgg ko waxee noonu sëriñ bi sant nu dóore sëriñ bi sant nu xaste sëriñ bi sant nu fitnaal kenn sëriñ bi li nu sant mooy ñu laabirante ak ñëpp waaye nag nu bàyyi xel ni bëggu sëñ tubaa day am bëggu sëñ tubaa faw day am kon li nu ñaan yàlla mooy ñi ñuy fekke te yàlla dogal ñu mu xaw a juyoo tuuti ak bëggug sëriñ bi sëriñ Tuubaa defal nu tawféexu bu nuy egsi rek nu fekk leen ñoom nu tege sa yoon woowee ba du ñu am lenn lu nu war a defar si seen mbir loolu nag ñu ngi koy ñaan xam naa ni sëriñ euh, Bada dana si dellu si ah may wax it si loo xam ne ndigal la ndax kenn ku ne dafa am wàll bu la jox léegi si mbir mi nga yor ko di ko saytu dinañ jox kàddu léegi sëriñ sëriñ Bada mu wax ndax moom ñoom ñoo yor wàllu communication waaye may soññi sama bopp nag di soññi waa dëkk bi di soññi suñ bokki taalibe yi ndax dafa am lu jamono jii loo xam ne dañoo daje dafa tolloo ak moom muy wàll politique ñu gis ni politique moom ñun ñëpp dégg nañ ci kàddu yi Cheikh Modou Mountakha mu wax ni li ko gën a naqar dëkk bi mooy politique àggoon na ci wax ni sax wote yi ñu dëgmal su mënee nekk bu nu wotee si Touba nañ toxal biiru de vote yi ginnaaw bi mu defalaat tawféex waa dëkk bi xam ne diggante bi xat na seriñ Bass leeral na ko yaakaar naa ñëpp dégg nañ waaye nu bëgg woo nag sunu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy def politique muy ñi nga xam ne dañuy bàyyi koo ñooy jóg di ñëw jóge feneen di ñëw ak ñi nga xam ne dañoo nekk si biir dëkk bi te di ay ay ay ay ay homme politique di war a def ay activité politique. ak ñii nga xam ne nag ñoom ay militants lañ nga xam ne ñoom dañ leen di woo ñuy wuy ji ñu bëgg a am ñoom ak déggoo ci lii nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi mooy bu nu sañoon newuñu kenn benn homme politique bu mu ñëw kër sëriñam newuñu benn homme politique bu mu ñëw Touba loola sëriñ bi waxu ko digle ko santaane Touba ku bëgg ñëw na nga ñëw ku mu mën a doon ak activité boo mën a def sëriñ bi mi ngi fi boo ko yittewoo boo ñuy mën koo gis waaye ñi ngi sàkku képp kuy ñëw bu fekkee ni politique la yëkkati na nga fexe ba la ngay organiser nga defe ko feneen fu dul Touba bu fekkee da ngaa ñëw nag siyaare sëriñ bi yëkkati la wala waxtaan ceeg sëriñ wala ñëw jëfla am loo séq ak sëriñ bi ngeen war koo jëflante muy buntu kër boo mën a tàbbi si Touba te loolu yëkkati la loola de nun am na ak yow benn wax am na ak yow benn xarma yàlla li nga xam ne daal moom lañ bëgg a waggar mooy li jëm si activité politique loolu bokk na si ñi nga xam ne dañuy def ay convoi def ay convoi oto yu bëree bëri ànd ñu taal ay lampe taal ay sirène topp mbedd mi fu ñu romb nit ñi tàccu ñi tàccu ñi yuuxu loola loola day day loola politique la boo xam ne day xajamal li nga xam mooy bëggu sëriñ bi ñi nga xam ne dañuy dajale si seeni kër wala si ay barab dajale fa ay militant woo fa ay responsable politique ñu toog fa di fa def ay jataay di waxtaan suñu sañoon ñooñu day buñ soxlaa lu mel noonu dem defe ko foo xam ne ayi wuñ waaye nañ dimbali ba ëtt Touba gii bu fi kenn woote ci sa kër mbaa ci sa pénc mbaa ci sa roq loo xam ne am ndaje la moo xam ne dañu fay daje di wax politique loolu ñu koy sàkku ci ñi nga xam ne ñoo nekk Touba ñuy sàkkoot ñi nga xam ne dañuy def ay meeting wala ñuy def ay marche wala ay te débat wala lu jëm si wàll activité politique ñuy ñaan ngir jëmmi sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha képp ku bëgg a def loolu na ko sëñ Mountakha waxe woon rek Mbacké ngi fi a ngi nga bàyyi say militant Mbacké bàyyi sa caravane Mbacké ñëw siyaare sa sëriñ sàkk mu ñaanal la nga delluwaat fekkaat say militant wala sa caravane dem defi sa activité politique foo xam ne kenn du la ko aaye kenn du waaye képp koo xamante ni ki yaa ngi ñëw bëgg a euh, jalgati loolu wax dëgg yàlla danañ danañ danañ dikk nag tere la ko te bu boobaa ah teg nañ ci ay daan yoo xam ne yaakaar naa ne duñ ko tudd fii waaye diis na diisaay boo xam ne ndax ñun danañ taxaw temm si li bëggu sëriñ bi mu am te bëggunoo euh, du yo kenn bu ñu sañoon loola du am kon loola maa ngi si soññi mbooleem koo xam ne kii yaa ngi yëngu si politique yaa xam ngay responsable politique nekk si Touba yaa xam ngay responsable politique nekk sa Ndakaaru wala feneen di ñëw Touba di fi wut si yaa xam nga yor ay ay militant fii wala ay mouvement politique si biir dëkk bi képp ku fiy yëngu si wàllu politique ay affiche ak ay traag yooyu yëpp bëgguñu ku ko fi taf bëgguñu ko fi teg ay son bëgguñu ko def caravane bëgguñu ko organiser ay meeting bëgguñu ko organiser ay réunion suñu sañoon ñi koy def nañ ko defe ci Mbàkke Bawol loola loola ñu ngi si soññ suñu bopp di si soññ ñëpp li si dolli ko mooy football bi sëriñ bi wax na ne football lu ko naqari la lu ko naqari la te loolu ko naqari kat nun taalibe yi rek noo koy def si dëkk bii kon ñu ngi ñaan di sàkku si ndaw yi ak mag ñi ndax léeg-léeg nga gis ay mag jëm ñoo koy def jël ay terrain aménager ko organiser ko di fa def ay match yooyu ñu ngi sàkku si ñoom ngir jëmmi sëñ Touba bu mënta ñàkk nañ ko defe ci feneen foo xam ne fi ay wuñ ko fa waaye daal ab taalibe war naa rus sëñ tubaa aaye dara ci dëkkam bii nga ne ab taalibe laa yaak sëñ Touba rek laa yaakaar ne maa lank fettirlu di ko fi def kon leneen lu nit ba fu nit bàyyi koo wax la dara lu jëm si yoon wi yow su boobaa amoo loo ko tontu ndax yow yaa njëkk a weddi li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi yooyu mooy yi nga xam ne mooy yi sëñ bi wax ni bokk na ci li ko gën a naqari li si dolli ko mooy njàngale mu wuteeg njàngale sëñ Touba kenn ne xam na ko loolu mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw di weddi sëriñ bi di weddi njàngalem sëriñ bi li sëñ Touba daj ci lislaam li sëñ Touba daj ci diine fi sëñ Touba jaar ba samp lii dundam gépp mu mu sacrifié ko ngir jaam ñi am jàmm te ba muy ñaan waxul murit yi waxul ak njabootam mbindeef yëpp la ñaanal la mu liggéey ba mu agsi fii képp ku jàpp ni loolee da nga ñëw nekk biir Touba gii di fi dund di fi jariñu ba noppi di dox doxu bëgg koo weddi bëgg koo jalgati di ko jaar nag si suuf muy di influencer ay xale di leen manœuvrer di leen endoctriner si loo xam ne wuute nag njàngalem sëñ Touba ñu di weddi seen i baay di weddi seen i kilifa di weddi seeni i ndey loolu képp ku nu dajeel nga def ko bokk na ci faute majeure yi nga xam ne ku ñu gis nga def ko loola incha allahu danañ waxtaan ak yow ba ah loolee incha allahu nga bàyyi ko. yeneen yi nga xam ne nag yëpp sëriñ bi wax na ko sëñ Bada dina ko lim léegi incha allahu yooyu yëpp bokk na ci li sàmm war may Touba ndax nit ñi dañuy bàyyi koo fu ne di ñëw Touba. bu dee jigéen bu jógee ndakaaru di ñëw day muuru sol lu jot ne Touba laa jëm mooy Touba xam na ni lu yiw rek ka fi am kay jóge ndakaaru nag war ma defar boppam ba war mawu ñëw Touba dikk bu ne cëpp yem si koo xamante ni kii fii la nekk waaye xotti war ma ja kookee xam na ne jëriñul dara sëñ Touba sëñ Touba ko jëriñ waaye moom njukkalul sëñ Touba loolee nag nañ fexe ba gàcce googu bu ñu dal mukk kon loolu xam naa si bañ a guddal bokk na si kàddu yi nga xam ne moom la ñu bëggoon a jotal li si des dañuy jox euh, sëriñ Bada su ko defee mu jottali kàddu yi mu si war a jottali lis bu noppee sëriñ maam Cheikh moom it jottali kàddu yi ñaanal nu su ko defee nu yeewul ko waaye daal ñëpp xam ni waaj xam ni incha allahu suba war nañoo tàbbiwaat si liggéey bi ñii ñu tànn nag di limu 313 muy jëy sunu lim boobu si Cheikh Modou Mountakha la bàyyi ko jëm ci jaar si sëriñ Bassirou Mbacké mu sëriñ Abdou Khadir moo digle nu tànn 313 muy limu jëy sunu lam sa jublu nag ñun sax xamuñu ko moom moo ko xam waaye yàlla nu barke bi dal barke maam Cheikh Fall mooy ñii ngeen gis ñu sol tënu yii kenn ku si nekk dañ laa defal ak tàggat fexe ba li sëñ bi bind si téere bi bëgg ko dañ laa tàggat ba ñu jàpp ni yow ni ko sëñ bi bëggee déggee nga ko ni ko sëñ bi waxee te am nga yéene jëfe ko ni ko sëñ bu bëggee ñooy ñii ngeen gis nii ñu taxaw ñoom ñoo fas yéene daje ak suñu bokki taalibe ngir laabirante ak ñoom ñoom nag duñ yor jaasi duñ yor fetal duñ yor yet duñu yor kuur danañ ñëw ni ko sëriñ bi bëggee ñu ñaan yàlla ñoom élan bi ñu jógee yàlla nañ fekk élan bu toll noonu si ñi jëm si ñoom waaye képp ku taxawit bëgg gàllankoor loolee faw danañ taxaw maslaa ak yow ba liñ ko bëggee nu amee ko ni ñoom nag waajal nañ leen ba waajtaay wi ñoom ñi yore groupe d'intervention yi bu ngeen tàbbee si terrain bi ñoom danañ xam ni ñii waajal nañ leen waaye jóguñu ngir yox yox yi dunu maslaa tamit li nga xam ne mooy bëggug sëriñ bi maslaa bi daal mi ngi si jàppalante laabirante ba li sëriñ bëgg mu am ko waaye fetteerul moom fu mu amee te maa lank li sëñ bëgg duma ko def loole faw loole dina am loo xam ne dana tege si sa kaw te su boobaa wax dëgg yàlla mun nun teguñu la ko yaa ko teg sa bopp kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp